mbokki amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war a ànd ak jàmbaaru Wrestling Academy ak 26 unités ya ca parcelles yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war a daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko a seetaan rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon boo daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat mbokk yu suivre Lutte TV point com ñoo ngi leen bu baax di leen ziare ki ñu jàkkaar lool xam ngeen ko champion bu anticipé retraite am muy Dieylané Pouye ngeen gis ko bëre woon na fi combat yu méttee méttee méttee combat yu neex yàgg nañ koo gis nag ci live Instagram bi mu nekk di dund léegi fële ci Suisse ñibbi si Sénégal ñu ñoo fa yéene waxtaan ak moom rek ci combat yi nga xamante ne ñoo fi gën a jege bi nga xamante ne suba lay am war a dox ci diggante Siteu ak Papa boobu yaakaar naa ne ci la ñu gën a yaatal sax dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokki internet yëpp bu ko defee ñu daal di waxtaan Jeylaani maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Lamine maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar bu baax di jël sama nuyoo bi nga xamante ni moom laay nuyu mbokku téléspectateur yu Lutte TV yëpp maa ngi jël sama nuyoo di ko teg sa loxo nga tegal ma ko si loxo base nga xam ne nit ku baax la. yàlla baaxal di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yàlla yokk business bi yàlla na gën a yaatu yàlla na gën a yaatu parce que nag wax dëgg yàlla ku yokkul da ngaa wàññi te yéen a ngi yokk bu baax a baax a baax a baax donc yàlla na yàlla yaatal lépp incha allah di fa jaare rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suma ñaari wayjur yàlla na yàlla yërëm leen tàbbal leen aljana si barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñañ fa fekk yépp ak ña fekki waaw di wax ne rek kontaan naa si jàkkaarloo bu mu jàkkaarloo waat ak yow ba nga man maa laaj maa ngi si sant yàlla di ñaan rek yàlla bu mu nekk suñu mujj ak jàkkaarloo incha allahu taala. macha allah loolu am na solo li ma wax loolu ngay dëggal wala mbër bu anticipé retraite bi wala ba léegi yaa ngi ci làmb non ba boo nee waaw bu dee làmbu Sénégal moom dëgg-dëgg euh, defee ëpp na 10 ans bi ma gëjee sëgg ndax sama combat bu mujj 2010 la woon. waaw donc bu la neexee nga ne retraité naa lutte sénégalaise mais maa ngi pratiquer ba léegi lutte parce que nag bëre lu ñu mel tey rek làmb moo tax lu ñu am tey làmb moo tax waaw donc ñu ngi bëri ba léegi nag mais yeneen xeetu bëri yi ñoo bokkul rek waaw. waaw maa ngi yëngatu sant yàlla di jaare foofu di nuy waa Suisse yëpp waa Suisse yëpp maa ngi jël sama nuyoo di ko teg si loxo Ibrahima Gueye Temzo. maa ngi koy teg si loxoom pour mu nuyul ma waa Genève yëpp bàyyi ma kenn les frères les frères Galsen maa ngi leen di nuyu waaw. loolu am na solo fi léegi fi balaa ma ñëw sax ci combat bi dañu gis image yu Balla Gaye yi nga xamante ne ay moom mooy génn vidéo bi ñu gis ni dafa jël volume ñu gis ni bële passé bi ñu waree bëre le 31 juillet Balla Gaye dafa ñëw ak ay muscles maanaam volume wul woon pour yow lan moo changé ci diggante bi préparation bële ak préparation bi différence bi mu yow. en tant que koo xamante ni yàgg nga bëre yàgg nga dem ci ay salle de musculation yoo xam ne ay professionnels ñoo fa nekk pour yow lan moo war a changement. waa si man euh, préparation continuité bi la si man continuité bi la ndax ku xam baal Balla xam ne dafa am yax bu rëy macha allah waaw te nag yaram gi nangu na nangu goo xamante ni lu mu ko laaj rek da koy jox mais li mu moom nii bu fekkee ne li mu yor nii bu fekkee moo ko moom musiba dina am de. waaw bu dee moo ko moom. maanaam xam nga doole bu àndul ak rapidité ak vivacité tamit baaxul waaw ndax boo tasee ku mobile mën na la sonal mais bu àndee karjo bu àndee cardio ànd ak mobilité musiba nar naa am de man maa la ko wax. maanaam gis nga ci moom doole instant bi li ngay sikki sàkk mooy vivacité bi rapidité bi. loolu rek laay laay sikki sàkk loolu rek laay si parce que Balla boo boo xomee la bu jëlee yenn poids yi góob dina ko arrangé parce que combat ak combat am ak Yékini am na ndam. mais amu fa gaawaay parce que Balla bu amoon gaawaay combat bi doon na jeexi si du jeexee noonu doon na jeexi bu yàgg waaw ndax góoma ndax moom moom poids bi wala déet mais bu ko moomee musiba nar na am parce que nag ku ko xam xam ne wax dëgg yàlla suñu per Doubalès sa ko jur te macha allah danoo am yax may profiter aussi di jaale sama per père si ndax Tafa Tafa woon na ma si dëj bi ma jaale mais doyul maa ngi koy jaale Balla di ko jaale Sa Thiès ay nit ñu baax lañ waaw sama gàmbu papa gi rek bu mujjee ñoom ñoo ñëwoon euh, jëmmal bés bi dëgg-dëgg donc euh, sama père euh, Mamadou du xam daan na ma conseillé dëgg-dëgg ne woon sama xaritu papa daan ñëw kër ga yàlla na ko yàlla yërëm yërëm père Boy Boy Bambara sunu père Mbaye Guèye ma koy jaale Moustapha Guèye ak sunu per Mor Fadam waaw bu ase gloire yi fi des daal yàlla nañ fi yàgg te wér. ci barke yonent bi. ñu ngi woon ci forme actuelle Balla Balla Balla Gaye bi nga ne loolu su fekkee ànd naag rapidité musiba dina am maanam musiba dina am su fekkee Bombardier liggéey na lu mel noonu nag. waaw mais xam nga boo gisee mbër boo gisee ñu ne la mbër mi dafa complet c'est pas c'est pas parce que dafa am doole. mais Balla ku ne xam ne ne kenn dootu ko jàngal bëre. ndax dëgg yàlla bu dee kaamilu bëre bi kaami kaamilu bëre am na. Balla téye na ko. waaw bu dee bëre alxuraan la. Balla tari na yor wàccee na kaamil. du dëgg moo looloo tax ma ne bu fekkee doole ji mu yor li ma gis nii image yi vidéo yi ma gis muy sirkile bu fekkee moo ko moom musiba nar na am ndax nag doole xale ak doole mag bokkul te la xam na li taxoon mu ñàkk combat ak Bombardier xamoon na li ko xañ waaw donc bu ko amee xëy na combat bi mën naa mën naa uute ak bële passé quoi waaw. kon mën nga gis ni Balla Gaye bu comme comme ni nga ko waxee bu fekkee noonu la demee lépp le premier janvier li mu bëgg bu ànd ak dogalu yàlla mën na koo def ci diggante ak Bombardier. waaw bu fekkee ne li mu liggéey na dëgg-dëgg parce que nag xam nga Bombardier nañ waxante dëgg rek man champion bu mel ni la ak Modou dama leen dama leen di respecté xam nga lu tax ndax mbër boo am na foo xam ne ni boo fa tolloo coono ya nga daan daj dootoo ko daj ndax nag ku waxal dëgg rek waxal yàlla Balla li mu waroon def si làmb yëpp def na ko ba pare waaw jom moo ko fi téye. ak euh, bëgg bëgg rattraper li mu ñàkkoon loolu la bëgg a dabbu xam nga Balla homme de défi waaw te xam gëm naa ne euh, daal bëgg ñëwaat ñu bëgg ñëwaat moo tax muy daj coono yi muy daj nii te nag coono du réer boromam te yàlla day fay coono. lan ngay xaar ci moom le premier janvier. ah le premier janvier li may xaar ci moom rek moom ñëw defal ñu spectacle comme ni mu ko daan defee. waaw wan parce que làmb nag Balla bu waree bëre rek làmb day yëngu yàlla moo ko def ci moom. ñu nangul ko ko dëgg-dëgg waaw spectacle spectacle la ñuy xaar si moom mu ñëw def na mu daan def rek moom bu signature day neex bu bu bëree day neex bu feccee day neex bu daaneeg bu daanoo yëpp bu bëree day neex. Bombardier moom ko seexal nag moom gisuñu ay photos parce que moom yaakaar naa moom tamit mu woon France di waajal ñibbisi na ci dëkk bi sax moom tamit le premier lan moo koy xaar ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2. moom it comme d'habitude rek guddi guddi mbuur lay wax loolu lay wax ah, làmb ji daal li may ñaan mooy yàlla ne ndax moom ku baax la Bombardier ñëw na Genève ñëw na ba seet si ma waxtaan ndax man ñu saafonte ndeysaan ku baax la moom it dëgg-dëgg moo tax combat bi daal que le meilleur laay wax maa ngi leen di ñaanal ñoom ñaan yëpp jàmm di ñaanal promoteur bi di sama papa Gaston ndax sama combat yi bu dee diis la huit yi moo ko tëgg ma koy ñaanal jàmm xam nga di ñaan di ko ñaanal réussite si bés bi incha allahu taala ñaari mbër yi yàlla may leen jàmm ba jour bi le meilleur gagne en tout cas ñaari jàmbaar ay daje ñaari ex des roi des arènes roi des arènes ñaar ñu ko nekk ba pare ki nekk na ko ñaari yoon ki jor na ko nekk kenn ku si nekk xam nga la muy saf waaw donc yal na leen yàlla defal jàmm que le sa rakk dina bëre moom tamit Abou Niassé dafa bett ko mbaam digganteem am lu am am lu ma naqari ndax wax dëgg yàlla Abou Niassé su ma rakk la en même temps ñoo bokkoon écurie nekk xam nga ku ma xam xamee ma ak fëgg la. ku ma xam-xame ma ak ama neex dëgg-dëgg xam nga mu nekkoon sama ñaari rakk yoo xamante ni dëgg-dëgg euh, voilà man Abou Ndiassé laa faraloon nag duma ko nëbb mais Pape Ndoye sama rakk la abu Ndiassé démérité wul ndax nit jël na fi avance bañ ne combat bi suba la wala ginnaaw suba mu reporté ko malgré tout am na blessure mu am ngor ñëw bëre ak Pape Ndoye kon jaaraama Abou Ndiassé quoi démérité wul bu mu ko yàqal dara na xëy takkaat rek comme ni mu ko waxee jamaïcain jeune la ñu koy féliciter di ko encourager mais comme utal na Pape Ndoye combat nañu na dimbali Abou Ndiasse rek utalaat ko combat quoi. waaw Pape nag maa ngi koy féliciter bu baax di nuyu Lac Rose ndax ñoom suma ay mbokk lañ per Tafa moo leen jur Père Tafa Ndoye maa ngi nuyu famille bi yëpp waa noonu la demee. Ah, mbokk lañ. samay mbokk lañ ndax ku ne caaro yi ne mbaaw te ku ma xam-xam ne man écurie mbaaw écurie mbaaw laa këkk tàmbalee dem écurie Ndakaaru Père Kati Diop maa ngi koy bu baax a baax. xanaa yàggoo Ndakaaru. yaakaar naa fa de sama combat Jos 2 looloo taxoon mu neex. ndax maa moom ñoo bokkoon Ndakaaru. Amadou sama père Amadou Kati Diop maa ngi nuyu Pape Sidi doomam bu nekk mu nga Japon. ñoo fa nekkoon ay xale man ak moom. waaw ñoo daan bërentu foofu père Kati mooy mooy jiin jiin wër. jin wër su ma rakk la parce que ñoo nekk noonu man ak moom écrit ñoom ñaar ñoo ñun ñaar ñoo fa gënoon ndaw ndakaaru yàq ya jóob di suñu mag ñu daan bëre ñi bu ñu daan bëre ñun si xale lañ daan nekk mais daan naa fa def lu doy waar li may nekk xale yëpp ndax perkat yi dama ma daan ber di ma jox ay ay affaire yu garaaw mais sori gi mu sori woon moo tax après sama papa ne ma daal da guddee booy ñëw da ngay sonn nañ contacter waa écurie Thiaroye far yàlla def Gaston Mbengue ñëw ba sama kër di seet si sama papa ak Max Mbargane maa ngi nuyu sama ménagère di nuyu waa écurie Thiaroye jaarale ko si Père Alla xam nga Max Mbargane mu ñëwee sama papa ma da indi sa drapeau yi nga gañe yëpp mbapat ma wàccee yëpp Père Gaston ne kii suma doom la defe naa si ëllëg si la ma Maxime Mbargane utal licence jox ma ñaari avance yóbbu ma écurie Thiaroye Géej lii moom ma fa yóbbu. nekk ci keppaaru Amadou Katy Diop la lay def ci mbër. lu bari la preuve gis nga ko ba léegi moo téye waaw Dakar Face moo ko téye te gis nga maa lañ may ñaan yàlla nañ continuer si lancé boobu ndax daal euh, wat gaal ak yëgoo te nag père yàlla na ko yà làmb delloo li mu def si làmb waaw dëgg-dëgg ndax jàmbaar la. perkat yi jàmbaar la yar gi perkat yi respect bi si perkat yi ak noppi gi si moom xam nga day boo gisee sax doo ko teg entraîneur doo ko teg doo teg ne kii daan na bëre ak taalibe gi aussi dafa jullite ndax moom loolu la xam lool ah, loolu la xam jàpp julli entraînement ci jaamu yàlla la bokk. Forza bëri na moom tamit parce que làmb moom looy waxtaan rek affaire yi gën a ubbeeku bëri na bëri ki démb am ndam ci kaw paka la fan kan nga gis ne mooy adversaire am pour le moment. Forza war war naa mën a bëre ku ne naka gars yi ibbil mu bëre Lac de Guiers numéro 2 dafa war a bëre forsa mais bien sûr forsa yàgg na ci làmb ji te ndaanaan la ku ne xam ne ne forsa dafa amul lu ko handicapé muy muy blessure nekk sama mbagul magule bi mag magam bu mu bokkal ndey ak baay ñoo nekk Genève waaw mag magam bu tudd Biram Wade ñoo nekk Genève bokkal ndey ak baay Biram sax dem naa gisante nañ ay quelques fois mais duñu wax dañuy nuyoonte rek. amuma affinité noonu ak moom mais bañ na ma magu Forza la rek Forza nekk mbër man damay sama xol day sot te Forza day libu Abbas dama ko seetaan ba pat mais dama ko xoon mere parce que dama bëreeg Ousa 2 daan ko mu mu mer ma ne ko takkal ngeen li ma daan la. ba bien mu mer mais après tout xam naa ko parce que face la bëgg ci xol bi loolu nag kenn mënu ci dara. waaw mais gars yi ko may chance. na ko gars yi may chance nag. mais Lac de ngi ko bëgg a dugal tamit Lac de Guiers diisul. waaw non diis na mais nañ ko may chance rek mu fronté frotté mag ñi parce que nag euh, Forza poids lourd la de poids lourd la mën na dugal seen biir naka gars yi ibbil Lac de Guiers mën na bëreek moom Sa Thiès man na bëreek moom xam nga diggante Boy Niang Tapha Tine mën na ku fa jógee mën nañ bëri mais Malick Niang bu ko gars yi fàtte Malick Niang na ñëw Garga Mbossé ñoom ñëpp dañu war a ñëw Garga Mbossé dafa war a bëri Forza Malick Niang daa war a bëri Forza combat yooyu benn combat dàqu ko yow daal Forza yaa ko dugal ci diggante Tapha Tine Boy Niang Sa Thiès Lac de Guiers 2 Malick Niang ak Garga Mbossé. parce que Forza mu ngi bëgg yàgg si làmba ji nag te champion d'Afrique la daan champion d'Europe te bul fàtte ne daan na Abdou Diouf Abdou Diouf bëri na ak Tapha Tine waaw daan na en 2000 super étoile ñooñu ñëpp Forza daan na leen Xaadim Njaay numéro 2 te ñooñu ay champion lañ ay poids la Forza daan. te gis nga pakala la daan nag ak la manière 15 secondes la ko daanee c'est vrai que dafa jël revanche am waaw mais champion d'Afrique la daan yooyu day compter lamba yi daal xam naa ne gars yi ñoo mën a mayante xaalis seen biir waa léegi Lac de bu bëreewul ak Forza ku muy bëreel wala day xaar rëg-rëg wala ku muy xaar wala kan lay xaar ñoom Franc ñii di ñëw il faut gars yi bu nag Forza yàgg na ci lamba ji nag gars yi may chance parce que maak moom dafa am lu ñu bokk muy sunu papa Mayel Diop waaw borom Dakaaru ak Cap ndax dëgg-dëgg sama xaritu Papa Lor moo ma jëkk yóbbu équipe nationale de lutte sénégalaise bu baax c'est Amadou Badji Amadou sama papa Mayel moo ma fa yóbbu maral nekk ak ñoom Youssou Ndour yi xam nan ma de Lamine wallaay ndax damaa doon bëre gi équipe def naa fay jaloore dëgg-dëgg Mayel Diop moo fa yóbbu ba pare yóbbu ma benn saal bu nekkoon VDN man ak Gris Bordeaux ak Moustapha Gueye ñoo bokkoon saal si xale bu ndaw Pape Mayel Diop fayal ma fa xaalis bu bari bu defe naa moom la VDN si kaw VDN bi la nekkoon daal boobu Bombardier ma ngay préparé combat am ak euh, Gris Bordeaux ma ngay préparé combat am ak Bombardier mm-hmm. maak sama rakk bii ñu tudd Mamba bu ñoo fa daan dem si laa nekk Gris mi ma gis nangu gi mu nangu Moustapha Gueye coono yi mu ko doon daj mu nangu ma ne kii day am ndam li ma wax nii Gris Bordeaux boobu dëkkul mbaaw de nekkagul sama gaayam mm-hmm. waaw ma koy nuyu moom Gris Bordeaux euh, xam nga président des en activité ma koy encouragé di ko si euh, diriger bi muy diriger euh, kii bi association bi waa ku boot euh, bukki xaj boow la waaw na continuer rek liggéey jëm si kanam te noppi waaw waaw loolu la mbokki amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war a ànd ak jàmbaar Wrestling Academy ak 26 unités ca parcelles yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war a daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko wër waa seen affiche ku ko bëgg a seetaan rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon book daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat